ab gox ku ko bëgg suqali da ngay fexe ba askan wa fa yeewoo daal di suqaliku mu mel ni loolee Pape Demba Bitèye xam na ko bu baax baax moo tax ca Kabatoki ga mu fekkee baax njiitu crème bi ginnaaw ba mu fa sampe ab arrêt Jakarta dafa daldi may lu toll ci ñetti moto kuréel gi dajale ñuy dawal Jakarta ci gox bi mu nekk ndoorteel ci ñoom ngir ñu demal seen bopp. objectif bu ñu am. mooy de façon revolving boobu ñu fexe ba ñoom ñëpp ku si nekk mun a am moto boo xam ne yaa ko moomal sa bopp. on a acheté également des équipements de protection individuelle yoo xam ne dinañ leen ko jox loolu dina leen permettre ñu mun a continuer parce que yemuñu foofu jëlal nañ cinquante jeunes yoo xam ne si quartier bi dañ leen defal formation pour ñu am permis de conduire ñoom ñëpp am nañ permis. moo tax aussi ñu jël aussi ak euh, garage bi taximaan yi ñu def ak ñoom action boo xam ne ñoom aussi sur le plan social dina leen mën a permettre ñu dem. lii di bien-être jigéen ñi naka noonu épanouissement wu ndaw ñi soxal na bu baax a baax njiitu Senelec bile ca noonu nag mu dal di tabax terrain multisport samp maternité boo xam ne dernière génération amoon nañ fi ay cas de décès métti yoo xam ne dëgg-dëgg neexul ci xol. moo tax nag bu ma waxtaanee ak samay partenaires yoo xam ne ñu ngi liggéey dans le cadre de leur RSE ma wax leen ndax mën nañ ñu dëgg-dëgg ñëw jàppale pour ñu def ci maternité bi nga xam ne moom la ñuy def léegi pare na presque équipement yi léegi ñu ñëw bu soobee yàlla lool dina nekk ndimbal bu baax ci jigéen ñi nga xam ne ëllëg ci biir ñoom duñu mun a nekk ci situation boo xam ne dañuy obligé di leen jëlee fii di leen yóbbu ba Kaolack wala di leen jëlee Sibassor wala Lindiane di leen yóbbu ba Kaolack parce que am nañ maternité boo xam ne 12 lits la avec tous les équipements qu'il faut pour ñu ëppale le terrain multisport moom besoin xale yi la ndaxte xam ngeen ne am na terrain foot am na terrain hand ak terrain basket. muy gest boo xam ne askan wa yeewoo ca kabato gi rafetlu nañ ko bu baax a baax. kabato gi xaw lan la jooy waaye bu dee 100 pour cent la woon neuf virgule man sama xel mosut a jóg ne bés bii dina mës am ndax Pape Demba bi tey ku ko xamul li dégg nga ko lu mu mënul dala naan lii de mënuma ko waaye bàyyi ma xool lu mu mën nag dina lii dinaa ko def kon jërëjëf monsieur Pape Demba bi tey ñu lay gërëm di la sant. suñ sukkandikoo ci Pape Demba bi tey. ay yoxom yi muy dugal ci lay suqali kabatoki rawatina lay suqali askan wa fay yeewoo deful lu dul rekk delloo naar bi xoromam ndax moom itam lépp lu ne ci moom tey ji dëkkam bi di kabatoki moom moo ko ci def